ginnaaw bu ma paree samay bagage pour tuxu Gàmbi wala benn réew ci réew yu ñu dendal ndax jafe-jafe yi may dund diis na tar na te li may risque mooy bañ a toxu lu tax parce que Sénégal mënu ma fee dund ndax ñu ngi may tooñ tooñ yoo xam ni yu flagrant la nguur gi gis ko justice bi gis ko ah ñi aju ci ñi yor wàllu sécurité gis ko te nanguwuñ koo faj li xew mooy man dama tabax jumaa fu ñuy wax jeune Sonatel jumaa ji nag bi ma koy tabax kenn fekkuma fa kenn sax jaaru fa ne ma salaamaaleykum man maa fa toog ak samay moyen tabax ko bu jumaa ji pare ma oo le bi fi nekkoon Alaaji Fàllu si le maire moom mi nga xam ne moo ma woon terrain bi sax far ñu ubbi jumaa ji ma oo imam teg ko ci loxoom ma teg ko ci loxol préfet te préfet teg ko ci loxol maire maire teg ko ci loxol imam ñu julli juma ji ba mbas mii dik ma ngi koy ñaan yalla yalla fi gaaw joge ndax mo indi lepp ñu ni tej nañ juma yi mané ah juma yi de kum tej nañu len man nañ taaxeelu ñu taaxeelu ba benen décret ñew né nañ ubbi juma yi di noddu ba paré wax nit ñi nañ seen kër bu julli mané lool d'accord na mo wër sama juma yépp joxé ci ndigal nangu di noddu di ñibi man tamit ma dem fa pour noddu ñibi foog nga jaar ci ña nga teew nit ña seen i loxo ma dem ci imam mu ni ma jàkka ji yoratuma ndigal li ndigal li ñu wax Amar Sarr moo ko yor demal ci moom Amar Sarr kat benn nit la boo xam ni ab tafaar laa ko mën a mooy koo xam ne kii dafa gàddu dafa nangoo gàddu pékkéb ñëpp moom ci jëmmam ma dem ci moom ne ko amat ma ne jumaa ji ba ñuy teg caabi ji teguñu ko sa loxo loxo imam lañ ko tegoon tey nag nee nga yow yaay yore mbiri jàkka ji dama bëgg nag ñu commencé ubbi jàkka ji di noddu comme ni ko nguur gi mayee imam yëpp suñu responsable des imams national may ñu ko ma ubbi jumaa yëpp ñu di ci noddu bii ma bëgg di ci noddu ndax tëj jumaa complètement jaaduwul mënu ma jumaa ju duñ ko ubbi man ko ah kay daañ ko ubbi noddu comme may nañ ñu ko mu bañ ma dem ubbi jumaa ji commencé noddu rek ne Allah mu ni cëpp sama kanam daa di au téléphone diw oowaat diw oowaat diw ba ma yëg ni oo na juróomi nit te man booba kenn ñaar laa àndal sama sëb ku ñu wax Baye Modou ak sama doom bu ñu wax Mouhamed kese ci biir jumaa ji man daal dama jékki-jékki rek ñu jëppeelu ñuy jaar ci sonorisation bi dagg ko moom mu poñe ma daane ma ni dóor leen nañ nangam ndeyam la wax ci biir jumaa ji la saaga ndey wallaahi azim ñoñu di door ku dor door amna ci ben xalé bu gatt aw yat la ma door moma ma xaañ xaañ yaangi ni ngi nii xaañ yi moom leer na nañ sadika medical bi nga xamni mo koy firndel sadika medical bi koy firndeel mi ngi ni medical bi mo koy ben fan la incapacité mu leer nañ ci bir loolu itam fekk na ci jumaaji ñu tabax fa ab bâtiment bâtiment baa ngi nii biñ ko fa tabaxee itam muy benn bâtiment boo xam ne bi war naa mat 6 mètres sur 7 mètres ak beneen bâtiment boo xam ne bi war naa bloc de toilette la lépp yëguma ndax man ba ma ko joxee laa fa gëjoon waaye nag bi ma demee ba gis ko dama dem huissier de justice ñu constaté ko constat huissier baa ngi nii arrêté baa ngi nii huissier Métamidou la loolu alkaati bi ñëwee fekk ñu may dóor booba sax dóor nañ ma ba bàyyi ma. police. police nag moom ki ko oo ko. dama jékki-jékki rek waa polis ñëw. bi ñu ñëwee xanaa kay boo fekkee ñaari kuréel kii di naaj ci yërëm yëpp yàqu mu fees dell ak deret. dama ko ubbi. ñoom bi woon caabi. ab kànnaar la dama xëcc kànnaar bi rek mu topp ma ma ubbi. nga ñëw commencé noddu. ma ñëw commencé noddu. li ñu njëkk def mooy benn ponkal bu ñuul kukk xaw ma turam de waaye fu ma ko gis xam ni ko mais man comme amersaan nee na maa ñëpp te man moo ñëw poñe ma daaneel ma moo ñi fi ñëw moo leen oo oh, moo leen xam man xaw ma leen. léegi nag ah bi ñu defee loolu man ma toog ak sama deret alkaati bi ñu accès ak seen ñaari oto bari bu bëgg a dee. xanaa kay lu bon bon wa in taifataani minal muminina iqtatalu iqtatalu faslihu baynahuma fa in baxat ihdahuma ala al-uxra fa qaatilu llati tabxi hatta tafi am amri la ñaari kuréel boo fekkee ñuy xeex boo ñëwee da dox ci digg bi jël ñëpp waaye man kenn ak sama ñaari doom lañ jël fekk na am na ñeneen ñu ñu ñu ñu ñu ngi may dóor ñooñu ci sama waa kër te ñu ne woon te jumaa ji dend ak moom ñooñu daw ñu boole leen ci yóbbu ñu commissariat garde à vue man donc maag sama waa kër téye nañ ma fa ba deux heures et demie ñaan naa alkaati ya fa ne may leen ma ma def hôpital faju ji sama bopp baa ngi metti sama gaañu gaañ yi metti na faale wuñ ma deux heures et demie lañ ma bàyyi ma juboon hôpital def médical bii certificat médical bii léegi nag porte naa plainte au niveau de la justice ci ñaari mbir benn bi mooy sama superficie bi ñu tabax ñaari bâtiment te tàgguwuñ ma métti na ma trop te réew mi réew nekk réewum droit bi ci tegu mooy liñ ma fekk ci sama biir jumaa dóor ma daaneel ma saaga ma ndey froisé ma tekki ko def kenn dongalo muy amat saar léegi nag nguur gi lu njëkk a def mooy affaire bi nga xam ni mooy affaire jumaa ji ak bâtiment yëpp dañ ko def classement sans suite